Sirat waaw <laughs> Gana. Gana charpentier la charpentier. filming. Hey, am I filming? Dame el hielo. Gano, fai il macino.

kii. amuma ci xel ñaar sax loolu kañ saay. wax dëgg du ko jar quoi. du ma ko laal quoi. dama def nii man laa waxee am ko tal te bëgg. continue, continue. li kañ inspecteur yi ñu ngi la tolloo. ñetti kuur yi rek la. ñeent ñeent. te yëpp ñëw nañu xool ñu xool ñu xool tegal noonu tegal noonu tegal noonu